te itam nit ki li mu am am daraja fu martabaam mën a àgg fu dayoom ak darajaam mën a àgg mënu ko wàññi mënu ko yokk xanaa ndax mujtahid mujtahid mën naa def ijtihaad ci masala mu bees moo xam ne dafa xew léegi te xewul woon ci jamonoy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu def ijtihaad am na ay mbir yoo xam ne islam dafa bàyyi buntu ba pour kuy def ijtihaad ndax évaluation temps ak melokaani peuple yi ijtihaad nag ab martaba la bu nit di àgg ca xam-xam du kaala du juddu du alal ju bari du sant ture mbaa sant nii mbaa sant naa ijtihaad darajab xam-xam la bu nit di àgg ay melokaani maandute la akub ragal yàlla akub njub akub xam-xam boo xam ne saa bu fa nit ki àggee rek mujtahid la ñun ñëpp a ci yem ci loolu ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñu am ñi ak ñu ñàkk ñi kay nekk mujtahid mooy ka jàng xam-xam alquran ak sunna ak ulumul quran ak ulumul sunna jàng usul ak alluga al arabia ba xam ko bu baax ba àgg ci daraja ba boole ko ku ragal yàlla su boobaa yal nay ab perse yal nay ab pakistanais yal nay ab sénégalais mujtahid nga fu mu dem ci alam islam ñu nangu kon nag islam du diine yi sëriñ bi may wax lu ko neex diine yi diisoo la ak dellu ci yàlla islam ak système démocratique ànduñu ànduñu bu leen kenn nax ci baatu démocratie day baat bu neex te amul dara système démocratie système bu yéefar la day gouverner peuple bi ci bëgg-bëggu peuple système démocratie day gouverner peuple bi ci jéem a amal xemmanteef ak bëgg-bëggi peuple bi ak lu peuple bi mën a bëgg rek donte ay béti seki caaxaan sax du loolu mooy démocratie loolu àndul ak islam te dinaa leen wax léegi lu tax ànduñu te itam système communisme système kéefër la mënta ànd ak islam communisme mënta ànd ak islam système kéefër la lu tax day gouverner ña mu jiite ngir amal bëggu-bëggu ña nekk ca bopp nguur ga xam nga communisme moom mooy ñi jiitu te falu nañu seen giir gu dund dootuñu faliku mukk ba ñuy dee la leen neexay dox loolu mooy communisme kañ ngeen gëj a dégg ay élection ca Union soviétique ca Chine parti communiste yi ci réew mi bi nga leen mayoon carte ba ñu gagné kan lañ ci wote waat kon mu àll ko ba faaw te kat du ñu doxal lu dul seeni bëgg-bëgg du ñu xalaat peuple bi du ñu leen laaj moo tax ma naan leen ci sama Afrique ja moom moom maanaam moom Marx Marx te Marx ne diine comme yamba ci nit ak a fen waxam ji day wone ak réeréem ci diine la set ba noppi ma jaay si di wax naan moom maanaam moom Marx nee na ñett nag ci baadoolay ouvrier yi jóg dem nangu nguur gi doxal lañ gis te loolu jubut communisme mooy maanaam ne ouvrier yi def coup d'état nangu nguur gi ci violence ak force imposer nit ñi seen i xalaat kooku mooy communisme communisme bi nga ko weddi loolu nag jubut communisme système kéefar la système islamique nag système la bu jébbalu ci yàlla buy appliquer ndigali yàlla ak ay atteem ci jaami yàlla yi foofu la islam wuute ak démocratie fi la wuute ak communisme communisme mooy ñi jiitu ci ay ouvrier ak li ñu bëgg démocratie mooy ñi jiitu nañu déglu peuple bi peuple bi dicté li ñu bëgg ñu àtte waaw ana ci sàkkoon peuple bi nag yàlla mi sàkkoon peuple bi dañuy fëgg loxoom ci àtte peuple bi loolu ku ko def ci réew mi it nangu woo ko sa kër doo dara lu dul bàyyi doo dara lu dul jëkkër sa njaboot sa jabar say doom ku ci jàdd sa yoon yoon wi nga tëral sa kër ga da ngay jàpp ne laa tooñ chef de service ay employé ku ci jàdd yoo règle yi mu tëral day jàpp ne dañ koo tooñ ki nga xam ne kii moom jurut ki jur dafa jege ki mu jur jëlut pour liggéey ay na ay nawle la ñuy ci jël ak ki mu jël kii dafa ëpp doole rek waaye dafa sàkk te kon nag moo moom yàlla mi sàkk amul droit ah nan la ñu mën a reconnaître droit yu papa ndax dafa jur droit yu yaay ndax dafa jur droit yu chef religieux droit yu chef gouvernement fàtte droit bi gën mag droit yi yépp te mooy xàqu yàlla ay na xàqul xaaliqiya islam système la bu jébbalu ci yàlla buy appliquer loi yi yàlla tëral ci jaami yàlla yi te yàlla moom wax na ci suratul maida ne wallahu yaxkumu maa yurid daan dañ gis mu dugg ci jàkka ji ngir xaar yi man mu ñëw ma jël kaamil bi di ubbi di jàng yem ci suratul maida tàmbali di jàng aay ju njëkk ji jeexee wallahu yaxkumu maa yurid yàlla moom day att lu ko so sama xel ne ah buur bi att lu ko sob de bu doon nit dana raglu bu doon nit dana raglu de la ko sob de yàlla may jàmm ko waaye yàlla moom li ko sob ci nun bu fekkoon du jàmm itam te nun ay ngàllam lanu ay jaamam lanu moo jaayoon ci ban xanaa dëgër bopp jàdd ko boo léegi mu fuddunu te kan du ko fekk waaye ma ma wéy ca saar wa di jàng ne suuti ma àgg ci aaya ju ma firil lii loolu ndekete woo yàlla ba mu ne lu ma neex lay atta it jublu wu ci anarchie wala féodalisme damaa jàng tuuti gis mu daal di ne maa yuridu llahu li yajcala alaykum min xaraj walakin yuridu li yutahirakum wa li yutimma nicmatahu alaykum laallakum tashkuruun yàlla nee na lu ma neex lay àtte may bëgg a tiit mu mel ne dañ mën a defal ndànk li neex yàlla yàlla daal di ne yàlla nag la ko neex du mooy teg leen tiis wala métit yàlla dara neexu ko ludul yàlla maanaam teg leen coono ak métit du mooy la ko neex dara sóobu ko ludul laabal leen ak mott li xéewalam ci yéen ndax ngeen sant kon nag aajowul ñuy ragal système islamique système islamique mooy système bi nga xam ne dañuy atteloo yàlla ay ngàllo yàlla lañu ay jaamam lañu nangu nanu ko yàlla sañ a atte lu ko neex mu atte yàlla bu noon jàkk Abdel Sur na ko rey sa bopp waru cee teg dara lu may rey waaye nag yàlla dana jàkk Abdel Sur na ko bul rey sa bopp dama laa yërëm yàlla bu noon jàkk Abdel Sur ne ko fabal paaka rey sa bopp dara wuru ci lu may fa paaka rey sa bopp ndax ab jaam dong la waaye yàlla dina jàkk abdal sure ne bul rey sa bopp dama laa yërëm wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima kon yàlla bam ne lu ma neex lay ate ngir doylu gu mu doylu wulus jaam ñi ñépp soxlalul kenn dara ak ngir melloo gu melloo yërmande ju yëmul fenn ak nag xam-xam bu rëy ba ak xaraña ga moo gaa yi xam-xam ba ca yàlla ci ku mu ne ci suñu leader politique yi ci Karl Marx astaghfirullah alladi qaaran tusmahu al a'la bismi hada al fajir al kafir xam-xamu yàlla bu rëy ba ak doylu ga mu doylu wulis jaam ñi ak yërëm gi mu yërëm jaamam ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla yërëm ji mu yërëm jaam moo raw yërmande ji doom yërëm ndey moo raw yërmande ji doom yërëm ndey te loolu am nañ ci firnde dama leen di laaj yërmande ji nekk ci xolub ndey mu yërëm ko doom ja ba di ca naf na fi guddeeg bëccëg nekk ci xolub baay nekk ci xolub maam mu yërëm ko sëbba di ca naf na fi yërmande joojee ndax maam ji ak ndey ji ndax ñoo ko def seen xol yi ndax doom ji ko ci def te ko ci def loola aslëf la lu tuuti lu bokk ci yërmande yàlla ju ma fab sànni ko ca xolub ndey ak maam ak baay ngir doom jëriñoo ko kon yàlla yërmandem juree jooji moo tax ba sañoon naa àtte la ko neex waaye nag la ko neex mooy liy jëriñ nit ñi di yéwénal seeni mbir mboolem ndigal yàlla yi ay njëriñ képp la ëmb lépp lu yàlla santaane am na njëriñ lu ci nekk loo xam ne moo tax mu santaane lépp lu yàlla tere am na lor ju ci nekk joo xam ne moo tax yàlla tere ko te loolu sax na ci alquran sax na ci sunna jullit ñëpp bokk nañ ci juboo te itam bu ñu seetee borom xam-xam yépp def nañu istiqra ba xam ne bépp ndigal bu ñëw ci benn aaya ci alquran wala benn xadis ci mboolem ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko seetee rek fekk njëriñ ña nga ca ka ko mën a xam nag na nga ko xam ka ko mun ta xam it réere ko waaye njëriñ moom maas loolu sax la ci téere diine bi mbokk jullit ñi kon gis nañu wuute gi nekk diggante démocratie ak système islamique système démocratie dafa fëgg loxal yàlla ci ni ñuy doxalee réew mi gaañe ku sàkk réew mi ku sàkk ni dëkk réew mi ku wàcceb taw kuy ñoral gerte ak dugub kuy ñoral ceeb kookee bu nu fëggee loxoom ci àttee réew mi fu nu ko teg kon nag démocratie jubut libéralisme jubut socialisme jubut communisme jubut li jub lenn la mooy siraatullah almustaqim yoonu yàlla bu jub xanaa kon nu jéem a gis ak lëf lu tuuti ay grande ligne ci état islamique المبادئ الدستورية في الدولة الإسلامية ولا برانسيب كونستيتيسيونيل في état islamique ginnaaw da ngeen maa waxoon ne naa leen bindal ci islam ak engagement politique jaadu na li yàlla tëral ci politique ma tànnal leen ci aslef woon leen su ma noppee nag bàyyi leen ngeen choisir librement li ngeen bëgg yoonu yàlla mbaa yoonu seytaane fu ngeen ci jaar rek bisub daje bi dina ñëw te bu ngeen demee fa kanamu yàlla werd bu baax joxe addiya bu baax te mooy ndigalal yàlla bu leen yàlla du yóbbu safara kenn du ko faj du pouvoir temporel du pouvoir nan spirituel kenn du ko faj kon li ma defee rek mooy ma won leen atle ay grande ligne ci ci principe constitutionnel ci état islamique ngeen def leen soob nag man ndongal daara laa rek dara ñu sama yitte lu may xëy jàngale gont jàngale ngeen di tuñux tuñuxe ba fekk ma ca àll ba nee ma kaay defara lu conférence ci ci lii kon nag faaw ma leeral leen dëgg bu yàlla gi doo dañu bi bàyyi leen nag ngeen def leen soob bu ñuy seet base bi nga xam ne ci la système islamique taxaw wala principe constitutionnel yi nga xam ne ku doon bëgg a defar constitution islamique ci nga war a ñoom nga war a bàyyi xel bi ci njëkk mooy nga xam ne état islamique dawla rabbaniya la du dawla libraliya du dawla démocratia du dawla socialiste du dawla communiste dawla rabbaniya système bu wàcc jóge ca kaw asamaan jibril wàcce ko say jox ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca yàlla moom la ci wàllu loi yi war a gouverner jullit ñi gouverner leen ngir taxawal alquran ak sunna ngir taxawal système bi nga xam ne mooy tax ndigal yàlla yi am ci kaw suuf te mooy tax tereem yi itam dàqu ci kaw suuf ci mbooleem domaine dund la te loolu moo ko boo ko wutale ak démocratie ñaareel ba moo gën a jullit ñi ci système islamique bu ñuy tànn seen njiit dañ koy tànn ci kaw liberté dañuy jaayanteeg moom mubayaa jaayanteeg moom ci kaw seenu d'accord te islam nanguwul coup d'état nanguwul forcé ay nit ci seen pour nekk njiit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na من أم قوما وهم لإمامته كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه yonent bi nee na képp ku jiita aw gaay sa njiit googee neexul gaaya nee na sa julli di weesu say nopp yonent bi nee na képp ku jiite aw nit ci kaw force waaye neexul nit ne boo jullee sa julli di weesu say nopp du la jëriñ dara daanu seetlu it ci système islamique dem leen di jox ay principe constitutionnel ci système islamique ci système islamique kay na ci njiital réew ma du poosé candidature loolu xam leen ko amul poosé candidature ak rival ci islam déedéet déedéet ci système islamique ku ne nañ ma jox réew mi ñàkk nga réew mi ku ko laaj kenn du la ko jox yonent bee ko tere sallallahu alayhi wa sallam moo ne inna wallahi la nuwalli hada al amala ahadan yasaluhu aw xarafa alayhi mu ne giñ nañ ci yàlla ne mbir mi duñ ko fal mukk ku ko laaj wala nga bëgg ko loolu xër ci loolu it wóotale na ko ak système démocratie système démocratie moom sëñ baabu day aw fee Abdou Aziz Sura aw fee si Daawud Juuf aw fee ku gën a mën a am éloquence wax wala nga gën a mën a neex laate peuple bi gis la nga jekk sa forme rafet nga dugg leen ñu may la carte moo xam mën ngaa yor réew mi moo xam mënoo koo yor moo xam maanu nga moo xam maanuwoo moo xam da nga sàmmonte li yàlla bëgg moo xam doo sàmmonte moom islam nag loolu amu ci li am ci islam mooy ku ne damaa bëgg ku ma jox réew mi ñàkk nga réew mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na laaj ak fal jël nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة yonent bi nee na xalset ngeen a dem bay xëri ci tal waaye loolu bu yomal xiyaamati ak réccu lay doon yonent bi nee na da ngeen dem ba xër ci tal waaye loolu bu yomal xiyaamati ak réccu lay doon yonent bi wax na kenn ci saxaaba yi ne ko laa tas'al al imaara فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها yonent bi dafa wax kenn ci saxaaba yi ne ko bul laaju fal mukk na nga xam ne ak fal suñ la ko joxee ngir mbooloo ma seet ba xam ne yow mi yaa ci gën a jaadu ñu jox la ko nga door koo nangu yàlla dina la ci dimbali waaye nag su fekkee da nga koo laaj ñu door la koo jox su boobaa yàlla dalay bàyyeeg mbir ma bàyyi la ak fal ga yàlla ko bàyyi sa fal doo dem kon amul poosé candidature amul ay rival di xasante ci système islamique li mu am mooy mbooloo mu ñuy wax ahlul xalli wal aqd ñu war doon ay boroomi xam-xam yoo xam ne ku ci bëgg a adhéré ku bokk ci réew mi mën nga caa adhéré waaye am na ay melokaan yu war a nekk ci yow ci fa sa xam-xam war a àgg sag ragal yàlla sag maandute mbooloo moom ñuy wax ahlul xalli wal aqdu ñooy daje réunir benn bis mbaa ñaar mbaa ñett seet ki gën a jekk ci réew mi ki gën a jaadu ci réew mi ci jiite réew mi ñu ne ko kaay jiite réew mi bu yonent bi jógee sallallahu alayhi wa sallam gaa yi dañoo dajee ci saqifatu saad ba ñu bëggee jàdd principe constitutionnel ye ye ye yont bi tëral Seydina Aboubacar moo leen fàttali indi leen xadis gaa ya nangu jullit ñu jëkk ne fu ñu déggee xadis nangu fu ñu déggee aaya nangu mun na fu ñu ko déggee reembaa bi fettesu bu ñu jógee dellu ca la mu nekkoon ci tay tay ba ñu taxawee ba dellu si waat ci mi ñu war a tànn ci diine dañ doon genge kuy nekk imam Seydina Aboubacar ne Omar tàllal sa loxo ma jaayante yow nga nekk imam Omar na ko déedéet man mënu maa nekk imam tàllal sa loxo ma jaayante yow ba ñu genge ko fa ñu ne lii mënut a yàgg réew mi mënut a toog ay heure te amul kilifa Seydina Omar moo force Seydina Aboubacar ne ko boo bañee lu ci xew yow yaa war a nekk kilifa sayidina aboubacar nangu ci kaw force ak sayidina amat ñu wan sayidina aboubacar julit ñi julit ñi ànd ci daal di wax ne ginnaaw doyoon na yonent bi ci dundam sallallahu alayhi wa sallam ba bi yonent bi feebaree moo doon jiite jàkka ji kon nuñu doy nañ ci suñu diine jaayante na nag moom kon tànn njiitu réew ci islam dafa am ñaari étape étape bu njëkk bi mooy mbooloo mu ñuy wax ahlul xalli wal aqd seet ci réew mi ku ko xam-xamam mate ak mu maandu teem ñu proposé ko peuple bi propose seet peuple seet suñu bëggee nangu buñ bëgg ñu gànd waaye kenn dal force itam te itam ahlul xalli wal aqd bu ñuy seet seet ba sañ ñu ko basé ci kaw diwa ma neex mbaa diwa may defal samay bëgg-bëgg mbaa diwa ma mooy sama doom mbaa mooy sama xarit déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane man wulliya min amri almuslimina wala man walla min amri almuslimina shay'an fa walla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lilmuslimina minhu faqad xaana allaha wa rasulah yonent bi nee na képp koo xam ne dangaa yor as lëf lu bokk ci mbiri jullit ñi war a tànn nag njiit nga dem di tànn koo xam ne xam nga ku ko gën a mën a jiite sambaa ngi dembaa ngi sambaa fa xam-xam moo ëpp ragal yàlla moo gën a mën a jiite nga bàyyi ko fa ñëw tànn demba ndax mooy sa baay wala mooy sa nijaay wala mooy sa xarit wala moo la defal lii yonent bi ne kon war nga yàlla akub yonentam képp ku ñu jiital ci mbiri jullit ñi ci dara nga fal nit te fekk xam nga ci mbooloom jullit ñi ku ko dàq lan ko fal war nga yàlla akub yonentam ngir ngeen xam ne alul xalli wal aqd du saa gën dañuy wéet rek seet leen neex daa ñu imposé ku leen neex dafa am ay règles yu leen islam jox yu ñu war a basé wu pour tànn pour proposer ñetteel ba moo di ne imam wala amirul muminin buñ ko tànnee ba jaayanteeg moom dafa war a tënku ci alquran ak sunna ledul loola da cee war a diisoo ak jullit ñi tëb foo xam ne alquran ak sunna ñëw na fa ñu ngi wér wu amul taawil lii aaya la wala lii xadis la kooku amul diisoo bu fekkoon ne dañoo tànn njiital réew luy jéem a jaar ci lislaam li mu war a jëkk a def mooy dindi riba bi ci réew mi teg ci mboolem lu ci war a topp te loolu bu koy def aajuwul référendum aajuwul laaj peuple bi ba xam lu ñu bëgg ki fàkk peuple bi moo bañ riba kon nañ ko war a bàyyi kon boog la alquran ak sunna ñëw loola imaam da cee war a tënku la alquran ak sunna ñëwul bu imaam fuuyu ne man maa borom yëf yi lu ma neex def déedéet daa war a diisoo moo tax suñu borom yàlla wax ne wa shawirhum fil amri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp xam-xam ñëpp xam-xam dong boobu doomu aadama ci sayidna muhammad la yem am xel dong xel mu rëy moom doomu aadama ci sayidna muhammad la yem waaye teewul yàlla ne ko del diisoog saxaaba yi shawirhum fil amri war na na seet it ne buñ dee wax diisoo ci islam diisoo bi day am taabaru lu ñuy wax ittihaad ittihaad mooy mbir mi ñu teg bëgg a xam luñ ci war a def mbaa luñ ci war a bàyyi ñu sukkandiku ci xam-xam yay jàngalee ni ñuy xame ak seet li yàlla tuddul ci alquran ak sunna ni ñuy xame ab attel ala sabilil misaal cigarette suñ bëggoon a xam ndax nguur gi système islamique da ko war a nangu ci réew mi wala da ko war a gàntu loolu dafa aju ci cigarette dañ koy araamal wala dañ koy daganal du saa yu ne député ñoo seen leen neex rek wala peuple bi ne ah ñi ci ëpp kat ay tuxkat lañu kon nañu déedéet dañuy def ijtihaad dañuy dellu ci kitaab ak sunna am na ay qawaid yu ñuy jàngale qawaid yooyu xam-xam ba ko tënk mooy ilmul usul ci la ñuy jàllu ba mën a xam cigarette lu xaraam la wala lu dagan la ñu jël xukm boobee mooy suraat su fekkee dafa am ay awju ak ay ixtimaalaat ay jamtalu yu bari nag su boobaa nag mën nañoo tànn bu leen ca sopp ndegam yépp dëppoo nag alxames suñu kon faw ci système islamique day am lu ñuy wax al majlis al ala li shura al muslimin nga xam ne su mbir ñëwee mu ñu war a xam lu ciy àttab yàlla ñoom ñu mën a dellu ci alquran ak sunna def ko istimbaat na yàlla wax ci alquran ne walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastambitunahu minhum su fekkoon ne mbir ma ñëw te xamuñu la ca yàlla wax dañ koo delloo ci yonant bi wala ca kilifa ya mën a xam loola kon ña nga xam ne mën nañ koo génneel atte dañ ko dinañ génn atte la ñeenteel ba moo di islam diine topp kilifa la système islamique système mu déggal kilifa la ak topp ko ak jaar ci ndigalam saa bu ñu jaayantee ak imaam jaayante bu wér jullit ñépp dañ ko war a topp feek lam leen di sant dëppoon ak alxuraan ak sunna état yi ci islam ñetti xeeti état la état bu nga xam ne bi islam daf ko considéré muy état wu yéefar wala état wu jullit waaye nag état bi da dafa saay-saay wala état wu jullit bu baax ñetti xeeti état yi bu nekk am na état wu jullit bu baax njiit la dafa am droit ci jullit lépp déggal ko topp ko ci la leen neex ak la leen naqari ci seen jamonoy sawar ak jamonoy tayel ndax topp ko farata yàlla ko farataal kenn ni sa xëccoog moom lu dul rek loo xam ne dafa wuute ak teg ci alxuraan ak sunna loolu ñu ngi ko gis ci xadisu Ubaadatu bnu Saamit ba muy jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ca lañ wax ci jaayante ga allaa nunaazia al amra ahlahu illa an taraw kufran bawaaxan lakum min allahi fihi sultaan yonent bi da leen ni na ngeen ma warlul nangam ak nangam ak nangam mu boole te ni na ngeen ma warlul ne kañu tànn ba def ko njiit du ngeen dem di xëccoog moom njiit ga ndara ngeen gis kéefër gu ñuul kuk bu leen leer ne lii kéefër la ba tey yonent bi ci beneen xadis boo xam ne Buxaari moo ko solo mu ne ismaau wa atiu wa in istumila alaykum abdun xabashiyun ka anna rasahu zabiba ma aqaama fiikum kitaab allah yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na ngeen déggal kilifa te ngeen topp ko doonte kañ jiite day ab jaam bu ñuul bu dëkk Éthiopie xam nga arab yi ñoom li ñu xamoon ci nit ku ñuul rek mooy jaam la arab yi mosuñoo masa mosuñoo mën a xalaat ni daal nit ku ñuul moom gor la jaam rek boo xasee ñuul daal jaam la islam bi bu ñëwee loolu bokk na si mu jëkk a xeex bilaal ci ñi gënoon a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon mas naa benn bi muy wax ak kenn ci saxaaba yi saxaaba yi na ko jaam bi saxaaba na ko jaam bi bilaal wax ko yonent bi yonent bi dafa mer dafa mer ba kanam gi tàng jër dafa mer ba mujj saxaar bi tiit xam ngeen saxaar bi nu mu def te ci nooblu Quraysin la bopp dafa teg la xam ci suuf ne bilaal dimbali na nga teg fii sa tànk te baal ma bu ma la waxati mukk jàmm ginnaaw te bañ demee di ubbi màkk muy honneur bu rëy te arab yi ba léegi tàmm guñu ni ñuul ak weex ak xonq amul ak wuute te alquran wax ko ba tey yonent bi moom buñ seetee ku war a yéeg ci kaw kaaba gi ngir nodd te arab yi dañoo fonk kaaba gi kenn ku nekk jàpp na ne boobu honneur moo ko war a moom ndax man may sutu diw may doomi diw yonent bi ne bilaal yéeg ci kaaba gi nodd bilaal nodd arab yi mer xund am ñu ne xoolal gi njàppum rek xoolal baaxuñ bu ñuul bi jaaw ko xaram bi ndokk bi sama baay fekkewul lii ndokk bi sama baay fekkewul fi ñu fa jaam bu ñuul di ko yëg di ko kaab di ko jox honneur bi loola naqari sama borom yàlla mu yëkkati kàddoom moom yàlla ngir défendre ku ñu néewal doole ne jibril kaay dem yóbbu aaya aaya ja ñëw ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha nnaasu ittaqu rabbakum nan la njaal benn saar yu waxee ci dama kenn fàttali yaa ayuha nnaasu ittaqu la la la la awal suura yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaan ak jeneen aaya ji wax na inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum